naxari nañu torop naxari nañ ba si kanam yàlla lii moom wax dëgg yàlla rafetul képp jigéen buy jur kuy am doom lii suñ la ko defee rek boo ko rek sa xol bi yëpp ay jóg dafa metti surtout ma doom bu góor ak nit ñi nuñ ko soxlee nga am sa doom bu ko si ñetti nga ñëw nga sandi ko si mbalis rafetul li laar dafa metti torop parce que munoo munoo nekk jigéen nga ëmb nga ëmb depuis kii ba nga am 9 mois nga nar a jël sa doom nga sandi ko loolu ñaaw na trop ci koñ bi parce que lii yàq der la ci koñ bi dañuy day xale bu bi man na bi dañuy koñ bi la nekk bu dee ci koñ bi la nekk na yàlla mu waxoon ne ko ko génne xale ko keneen nga ne ko ah dama wasin mënu ma toppatoo xale bi jëla xale bi nga toppatoo ko ndax lii dama ko naqarlu trop en tant que jigéen bu mës a am doom ba ñaari yoon yërëm samay morom jigéen yi nga xam ne jaral na la ñu jaay seen waxande yëpp ngir bëgga a doom mën nañu ko am tey bu ñu tegee seen bët si ñaawteef ju mel nii lan la ñuy wax lu may ñaan yàlla daal comme ni ko ndaw soosu waxee léegi kii ko def nii yal na ko yàlla feeñal ba cëgu ndaru kam ci darajay door Muhammadu laay